di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi mboolem barab bii ñu nekk Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mi nga xam ne moo fi nekk sëriñ Touba ñu ngi koy nuyu ci turu bi di ko siyaara di ko jox wàccuwaayam di fedd lee koy yeesal sunu jaayante ak Serigne Touba di ko jaarale ci moom mi ko fi nekkal di ko sant bu baax ci barab bii nga xam ne ñu ngi ko fi defee te biñ ko ko yëgalee mu bég ci lool. xolam sedd ci guy ba mu àgg ci ne jëwtoon ngeen may tàggu maa yéen a ci yem lu ngeen di defal suñu Mbàkke Kajoor loolu yëfi sëriñ bi la kon bu ngeen tàmmoo fii di ko def jëw ngeen ma ciy tàgg man ngeen ko def seen baaxu maa yéen a ci yem képp kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu doom yàggal ko fi lool te may ko wér te lépp lu mu yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa mu defe ko nam ko bëggee te ànd ko moom ci barke sëñ Tuubaa ginnaaw loolu ñuy nuyu sëriñ Ahmadul Badawi moom mi nga xam ne moo jiite daayira Rawdu Rayaahiin te ñuy taxawee bis yii di ko dundale ak di ko waajale bis bu mag bi suñu kanam di bisu màggalu Tuubaa di bis bu sëriñ bi woote ngir ñu sant la ko ci boromam yàlla dogal ñu jagleel ko koo xam ne wajuru sëriñ bi la xaritub sëriñ bi la soppeb sëriñ bi la taalib sëriñ bi la wajur gi def yàlla la bi ak soppe bi sëñ bi ko bindal boppam ci mbind mu ko bindoon ne ko yaa abati yaa xalili wa habibi mbind maa ngi nii loolu sëñ bi ko kon wajur gi def defu yàlla waaye xarit bi ak soppe bi moom sëñ bi ko wax la boppam ne ko yaay sama xarit sama soppe gannaaw boo dee sama wajur taalibe gi nag pas-pasu sëñ Mbàkke moo jaayante moom it nangu dogalu yàlla jébbal boppam sëñ Tuubaa ak njabootam kon ñett kon ñeent yooyu yëpp dajale diggante sëñ Mbàkke Kajoor ak sëñ Tuubaa way juwama ab xaritama soppeema ab taalibe kon sëñ Ahmadou bu ngeen fabee bis bii jag jagleel ko sëñ Mbàkke Kajoor tuddee ko ko Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo ne ci bopp kër gi de ak mbooleem ay wakkam seen xol seet na ci bég nañ ci ñu ngi leen ci sant bu di leen wax ne jàpp nañ ne def fu ngeen ko mës a def baax na dana sedd xol sëriñ bi waaye fi ngeen ko def de moom am nañ yàq ci ne lu sedd xol sëriñ Tuubaa ndax diggante sëriñ bi ak sëñ Mbàkke Kajoor kon bu fekkee da ngeen doon dàkk bëggu sëñ bi day jëmi sëñ Mbàkke Kajoor moom da ngeen jàpp te loolu sëñ bee ko waxoon te danaa ci ñëw kon alhamdulilah rabbil alamina bi ngeen ko defee kon loolu njaboot yépp ñu ngi leen ci sant di sëñ Mouhamadou Moustapha di leen nuyoo léegi rakkam yi nga xam ne ñoo nekk jataay bi teewal ko ci sëriñ Baara Mbacke Ngaabu toog na fi lu yàgg léegi la jóg sëriñ Cheikh Mbacke yow moom it ci ñi fi njëkk la bi ñu samalee topp saan toog na fi ba bi ñuy liggéey fekk nga leen jataay bi ñi fi nekk ni nii di sëriñ Baara moom sëriñ Abdul Majid sëriñ Basiru moom sëñ Amar Fall sëriñ Maam Thierno Mbacke moom sëñ Modou Ndiaye sëriñ Basiru moom sëriñ Habib sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mouhamadul Ndiaye ak seeni doom doom yi ci ñibbi mag ci ñi fi jataay bi sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Gelongal ànd ak ay rakkam sëriñ Sidi ak mbooleem njabootu sëriñ Modou Gelongal ak seen rakk yëpp kon ñooñu ñëpp ñi ngi ci jataay bi ak sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy taawu sëriñ Moustapha ak ay rakkam yëpp mën naa cee boole sëñ maam na moomu ndax ci njabootu ko sëñ Mbacke Kajoor la bokk ndax way juróom wu jigéen fi la bokk sëñ Omar Mbacke Gelongal moo ko docteur Xaadim Siddé mii doon wax mën naa ko cee boole ndax ci jaboot sëñ Mbàkke Kajoor la bokk ndax way juróom bu jigéen sëñ Amar Fall mii taawu sañ Mbàkke Kajoor moo kon ñii ñooy njaboot gi fi teewal sëñ Moustapha kon sëñ Mouhamadou Lo Ngaabu moom it yàgg na la dem moom it ci njaboot gi la bokk ndax soxna benn Ngaabu way joor soxna Faati ko jur sëñ Mbàkke Kajoor kon moom it ci njabootu ko sëñ Mbàkke Kajoor la bokk kon ñooy njaboot gi fi teew sëriñ Abdul Majid moom sëriñ Habibu ak sëñ alxaaji Mbàkke mu sëriñ Habibu ñoom ñu ngi ci jataay bi ñooñi ñooy rokki sëriñ Moustapha yi nga xam ne ak njabootam gi nga xam ne ñu ngi fi teew teewal ko fi di leen dalal fii ci seen barab bii di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi koy taxaw ci yoon ci jaayante sëñ Tuubaa di ko liggéeyal ci xam-xam di ko tasaar di xamle sëñ sëñ bi tamit lu ko mat ndax damay wax ne sëñ tubaa koo xamal ci ni sëñ tubaa mel mu bëgg sëñ tubaa sopp sëñ tubaa waaye dafa am ñuy xamle sëñ tubaa ci anam koo xam ne ku ko xamlee sëñ bi ñoo ñooñu danay jéppi ña leen koy xamal ba tax duñ yëg sëñ bi nañ ko yëg alhamdulilah rabbil alamin nag yéen da ngeen jug di xamle sëñ tubaa ci niñ ko war a xamle mooy xamle ko ci ni ko yàlla melal xamle ko ci ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melal xamle ko ci ni melal boppam xamle ko ci lam doon liggéey xamle ko ci nam lam bindal boppam waxal ko boppam kon doyawaw doyaa hin nañu yoon wi foo xam ne ñëpp ñëpp lañ fa féete li ngeen def itam ñëpp ngeen koy defal ndax sëñ Tuubaa mënee su ko ñàkk xam waaye bari na ñu koy xamle noo ñoo xam ne nañ koy xamle wuute na ak na sëñ bi mel lool te lool it ab liggéey la boo xam ne ab liggéey féetu ko kaw ba ngeen ko tàmbalee jamono sëñ Saliou ba léegi téere yi ngeen ci def di ko tasaare ba wam xam-xam yi fi ñëw ci màggal gi di ko yóbbaale bari na ci luñ ci dolli ko sëñ Tuubaa kon loolu ameel nañ leen ci ak cant ameel nañ leen ci ak ngërëm ci tuur njabootu sëñ Mbàkke Kajoor gi ndax jàpp nañ ne ñoom ngeen koy defal ndax sëñ Touba ak sëñ Mbàkke Kajoor yàlla da leen a boole bu yàgg ñuy benn ndax sëriñ Mbàkke Kajoor sëñ Mamoor Anta yàlla dafa dogal moom moo yar sëñ Mbàkke Kajoor jàngal bis mu woo sëñ Mbàkke Kajoor ba mu toog mu woo sëriñ bi mu toog mu wax sëñ bi ne ko Ahmadou bis nekk tey na nga xam ne Ibrahima mi mooy sa baay moom laa la féetale daal di wax sëñ Mbàkke Kajoor ne ko sëñ ne ko Ibrahima na nga xam ne Ahmadu mi mooy sama cër ci yow daal di wax sëñ Mbàkke Kajoor ne ko Ahmadu mi mooy sama cër yow séddale naa la séddale naa la wax sëriñ bi ne ko Ahmadu sëriñ Ibrahima mi mooy sa baay si féetale naa la am sëñ Mbàkke Kajoor daal di wax sëñ Mor Anta Sali ne ko Ahmadu de xaw ma am na baayam déet waaye man de wóor na ma ne am naa doom Ahmadu nag xaw am na bàyyi waaye man moom xam naa ne am naa doom te booba li ne ci sëriñ bi ñëpp xam daway mut waaye sëñ Mbàkke Kajoor yàlla da koo defal tawfeex ci sëriñ bi ndax jàpp naa ne baraana kuñ naan njëkk moo njëkk a ci sëñ bi waaye man suñu ébi bi wax na ma loo xam ne sëñ Tuubaa leen ko wax ci làmmiñam ñu dégg ko ci seenu nopp loo xam ne saxal na ne ku njëkk a jébbalu sëñ Mbàkke Kajoor mënta am ndax loolu fi ma ko teg sëñ Abibu dafa ma ne maag sëñ Omar maag sëñ Maodo Mbàkke day sama rakk dañoo mas a ànd benn bis gannaaw timis ñu ñu waxtaan ñoom ñaar ne ñun de jébbaloo ko nañ dem ci sëriñ bi nee na sëñ Maodo ne ko bis mu ne ko waaw man ñun de war dañoo dem jébbalu nee na bi ñu ñëwee sëñ Matar Sylla moo leen ubbi daal di dugg ci pic ak kias ñëwaat woo leen di leen jàll si leen nee na fi fekk sëñ bi sëñ bi donc dañu fekk ñu nuyoo sëñ Abibu nee na ginnaaw maam ak sëñ Maodo tuuti sëñ Maodo ne ma nii ma daal di wax mu ne ah lu doon seen tànk ñu ne ko mbàkke ji noonu dañoo ñëwoon ngir jébbalu si di la jébbal suñu bopp sëriñ bi daal di muuñ dane ah oh, ma leen bañ ma leen di jébbal juddoogu leen leen yéen de seen baay ma jébbal naa la saa bopp ak sama njaboot amagutug njaboot naan ma jébbal naa la saa bopp ak sama njaboot amagutug njaboot su ngi mu daal cee teg daal loolu nag yéen ñëpp yéen ngi ci biir yéen ñi njaboot suñu mbàkk jow gépp ngi ci waaye man loolu dama caa daal dégg ne ginnaaw mam moo sëñ sëñ am faal mii taaw sëñ Mbàkke Kajoor mam moo ant sali ko tudd mam moo ant sali ko tudd te sëñ bi ginnaaw mam moo ant sali la woote bi te sëñ bi nee na ko ba mu naan jébbal naa la amagutu kon kay liñ leen kon man loola dégg naa ci ne kon sëñ Mbàkke ba muy jébbalu ci sëñ bi ak njabootam comme mam am sali ngi ndax ndax sëñ am faal moom wér na ne mam moo ant sali ko tudd te sëñ bi itam wér na ne ginnaaw mam moo ant sali la sos yoon wi te sëñ Abibu nee na ma moom moo ma ko wax ci noppam mu laa leen seen bàyyi ba ma leen di jébbal naan ma jébbal naa la sax sa amagutul njaboot kon loolu day ne kon suñ kon suñ mbàkke joo ngeen njëkk jëbbali sëñ kon loolu li ma ciy wax mooy yàgg guñ ak sëñ mbàkke teel bu mu teel a nangu nangu yàlla def sëñ Tuubaa nee na ma bi loolu lu siiw la sax waaye gannaaw bi soxna maam njax si la mi nga xam ne bokk na ci ñu nekkoon ci kër gu mag gi nettali na ma ko muy fande googu ñu fande woon ci kër gi ñoom njaboot suñu mbàkk jo ak guddi sëñ bi dajee laaj leen leen ndax weer ngeen fekk booba xam naa bokki musóobe yi fi nekk maa mi sëñ sew naa ñoom yi xam naa booba jëfandikoo nañ weer ba mu jeex bàyyi suñu mbàkk jo sëñ bi guddi sëñ bi mel ne da koo xam ci rek te sëñ bi mayoon na leen lu maytoon kenn ndax ñoom da leen mayoon ñuy fanaan ci biir kër gu mag te loolu sëñ mayu woon kenn njaareem kenn daaw fanaan ci kër ku dul ñoom jéego lañ fa nekk di ay na ma ko yàlla jéggi ay tuut tànk lépp ci biir kër ga lañ koy fanaan te loolu sëñ bi daaw ko may kenn sëñ bi leen waaw ngeen mu ne déedéet mu ne bismillah doomi sëñ Mbàkke Kajoor ñu fanaan sama kër di fande loolu dara yàgg da jëwum jëwaluma su ma dee as door day seen bàyyi lu ma fi bàyyi war naa ci teg loxo te doomi sëñ Mbàkke Kajoor wërta nekk sama kër di fande ndax seen bàyyi tee na maa fande ba tey li sëñ maam Ceerno mi doon nettali léegi daan ne ba ma nekkee ca daara di jàng dañ daan def suñu wootee ne bisimilah dongo yi daw njëkkante bala ma àgg danañ fekk ñu jiwoon ndab la ba wàññi ko te man du ma jiw booba du ma àgg sax bala ma àgg day njëkkante dem ñaat ci man jox ma ñaat ba ñaat ba laa jëfandikoo mujj suñ mbàkk ba ma soxna fat jóom la ca kokki wallu fa suusal mbàkke daa mujj yónnee ndàll ca kott ca way juróom bu jigéen ne na ko defal suusal baraay bu bari ba mu ñëwee mu denc ne sëñ bi bu ñu wooteetee bul wuj nee na baraay boobee moom la may jox moom lay jëfandikoo nee na am at ay at yoo xam ne li may jëfandikoo lépp sëñ Mbàkke ma koy jox daan leen kon nag wóowu leen fanaan sama kër gi di fande defal lu ak gàtt ci guddi gi defal leen ko ñu ñu jëfandiku ci sëñ Tuubaa rekk mat daana sëñ bu daana wax ne wa bashir bi leen bi yàlla yataamaa dawaaman ansihim bii abaahum kulla hiin xam na ne sëñ tubaa yàlla nangul na ko lépp waaye ñaan googu suñu yu nee na ci ñun doomi sëñ Mbàkke jooge ci la ko sëñ ci la ko yàlla nangule sëñ Tuubaa ndax sëñ sëñ Tuubaa bégal nañu bañ fàtte su ba fàtte suñ fàtte suñu bàyyi kon sëñ Mbàkke jooge ak sëriñ bi seen diggante lu yàgg la lu xóot la kon bu ngeen fa bee di delloo ko kon njaboot gi yëg nañ ko gis nañ ko sant nañ leen ci li ci des nag muy cantuk sëriñ bi ci ci ñi nga xam ne ñooy njaboot gi ak ñi fi teew ndax xëy na jataay baa ngi bëgg a gudd te diggante sëñ Mbàkke sëñ moom mën nañ ci wax ba suba te du jeex kon sëñ Moustapha mi ngi sant mbooleem njaboot ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam tàmbalee ko ci sëriñ Cheikh Tedd mi nga xam ne mooy jëw yu ñëw moom sëriñ Modou Ndiaye waaye tàmbalee ci njabootu gë sëñ Amma Fall sëriñ Cheikh Kajoor ma ca bopp ak ay rakkam yépp sëñ Moustapha ngi leen sant di sant njabootu suñ Mbàkke suñ Amma Mbàkke Gelaw Ngal suñ suñ Ceerno ma ca bopp ak rakkam yépp sëñ Moustapha ngi leen sant bu baax njabootu sëñ Mat Lamin ay sëtam a fi nekk waaye sëñ Baara ma nga xam ne moom ak ay sëtam ak rakkam mi ngi leen di sant njabootu sëñ Abdul Karim sëñ Ceerno ma ca mag ñi ngi leen di sant njabootu sëñ Abdul Majid sëriñ Basiru Roqaay ma ca mag ak ay rakkam sëñ Mustafaa ngi leen sant sëriñ Baara ko fi teewal sëriñ Ousmane sëñ Maamor ma ca mag ak rakkam sëñ baa ngi leen di sant njabootu sëriñ Habibu sëriñ Seexuna ma ca mag ak rakkam sëriñ baa ngi leen sant njabootu sëriñ Modou Ndiaye moom laa jëkkee sëñ Cheikh Tedd moom laa jëkkee woon sëñ njabootu sëñ Mamoor sëriñ sëñ Mor Talla mi nga xam ne mooy taatu sëñ Mbàkke Joor sëriñ Mbàkke mi nga xam ne moo ko fi nekkal yal na ko yàlla doole ak wér ak moom it sëriñ mi ngi koy sant di sant it ñi ngi ko bokkal ci jigéen bàyyiwul genn kër bàyyiwul ñenn mi ngi sant ñëpp sant it njaboot yi nga xam ne ñooy njabootu kër gi di suñuy doom ak sunuy jarbaat ndax bis bii kat biñ ko dawaa yi yëkkatee teg ko ci wax ne dañ koo jagleel sëriñ Mbàkke bi ma demee yëgal ko sëñ Moustapha bi ma sëñ Mor Bousso mi woo wax ma ko ci turu sëriñ Ahmadu ma jox ko ceeg ñoom bi ma ñëwee yëg wax ko sëñ Moustapha sëñ Moustapha dafa ma daal di wax ne bis bi mi ngi noonu seen loxo man tegaat naa ko sa loxol yaa gone yi ànd leen ko taxawoo ko lu ci wax def leen ko loolu la ma daal di wax ci kanam ak njabootam nga fa nekkoon biñ dajee ma daal fabaat lépp sëñ Sidi Mbàkke moom sëñ Mahamadoon Jalaw Ngal ñu ngi koy sant bu baax ndax damaa daal di fab lépp tegaat ko ci loxoom ne ko samay mag de doyloo nañ ma waaye may doyloo naa samay doom te ñi fi nekk yaay yaay seen mag kon jiiteel liggéey bi sëñ sii di jiite ko ànd ko rakkam yëpp ñu taxaw ko taxawaay ba rafet ma sëkk ba jataay bi ak si fi mel nii mu mel kon lu fi nekk ñoom njabootu kër gi ñoo ko def kon sëñ sii di ak ñi mu àndaloon liggéey bi ñëpp ñu ngi leen sant bu baax ci tur sëñ Moustapha di leen xamal ne leen sëñ bi de mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen soññi soññ gi nag ci ñaar lay jëm ci diine lislaam ji amul lu dul moom ak taalibe gi ñu amul lu dul moom ngeen sax ci dàkk nga war sëñ Mbàkke Kajoor ji loolu lañ leen xam ba ci topp mooy ngeen gën a bennal seen bopp te xam ne bennoo ak ànd mooy doole mooy tax itam nit mbir mën a jëm kanam te lool bis bii ak taxawaay yi ngeen ci wane wane na ko kon loolu sëñ mi ngi leen ciy soñ ba ci des nag ak ñaan la di leen ñaanal fan wu gudd loolu waa na ko wér bakki sëñ Tuubaa xam naa délégation yi doon bañ kim sëñ gannaaw sëñ ji li lim na ko waaye du ñàkk ay kilifa ngi fi teew yoo xam ne deesu leen mën a ñàkk tudd ku mel ne sëriñ Baaba Mbàkke mi nga xam ne mi ngi fi di mag di sëtub sëriñ Mbàkke soxna ànd rakkam sëriñ Cheikh Mbàkke ak sëriñ Cheikhouna Mbàkke du yooli sëriñ Mbàkke mi sëñ Moodu yónni ak ñi ñu ko bokkal sëñ Moodu Maamun Busa moom sëñ Mbàkke Kanni ñooñu ay kilifa lañ yoo xam ne di deesu leen mën a ñàkk tudd ak seen kóllëre gi ñu seq ak sëñ Mbàkke Kajoor ndax sëñ Mbàkke soxna ku ne xamoon ne diggam sëñ Mbàkke Kajoor moom dañoo jaxasoo woon lool doonoon benn loolu nag njaboot xam nañ ko te ñu ngi koy dox ñu ngi koy fett waxtu ne ñu ngi koy dox njabootu maam mam njabootu suñ maam moo jaaga itam ñoom it noonu suñ Abdou Khadir suñ ji lappe mi ko jiite moom ci que suñ la bokk ndax suñ amoo Mbàkke Jalongal moo jógee joom bu jigéen kon moom ci kër gi la bokk waaye téewul nag da ci am ñaari téewul ndax koo fa it yàlla dogal na moo yow baatu kër ga ànd naag délégation bu mat sëkkub délégation ci tuw njiitul kër ñëw fi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen xam ne ñoom itam diggante sëñ Maam Mor Jaara ak sëñ Mbàkke Kajoor ñëpp xamoon nañ lu yàgg la ndax bi fi sëñ Mbàkke Kajoor jógee Maam Mor Jaara moo ko taxaw moo ko te it seqoon nañ seq yu bare te sëñ Tuubaa it boole woon na seeral leen ñoom ñaar ne sëñ Mbàkke Kajoor ak sëñ Maam Mor Jaara te ñaar la jëmm lañ yoo xam ne amee luñ yàlla seen borom mi leen bind borom amee luñ bindeef yi borom li ñu li leen wax seen digg seen borom matal nañ ko li leen wax seen digg bindeef yi matal nañ soo seewee sëñ Tuubaa leen ko boole loon seew kon ñoom it ñu ngi leen sant bu baax ci teewaay bi ak këllëw bi njabootu suñ Modou Gueye jëmmoo yebal nañ fi ab délégation ba njiitu suñ Xaadim Gueye ñu ngi koy sant di gërëm suñ jiili jaawoon na njabootu suñu Adama Gueye suñ jiili waxoon na ko ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ci tuur sëñ Moustapha di leen ñaanal di delloo ñaanal suñ Muntaxa mu yàgg fi téwér li ma koy tëjee ci diggante sëñ Mbàkke Kajoor ak sëñ bi ci lu gàtt muy soxna sëy na bu Mbàkke mi nga xam ne dafa bokkoon ci njabootu sëñ Mbàkke Kajoor gu jigéen bi sëriñ bi dëkkoo woon amoon na fa ku jigéen ku ñuy wax soxna may Maymuna mi ngi ci armeelu Gédé yi lañ ko denc soxna say nee daa xëy ak suba teel sëriñ bi woolu ko ba mu ñëwee mu ne ko sëy bu de tey damaa bëgg sant yàlla sant la seen bàyyi yàlla daal di génnee ab nattukaay lu mel ne ab bërigo bu def ab ceeb sëñ bi ne ko nattal demal indi ak bañ waaw suñ soxna say indi ak sëñ bi jox ko nattukaay ne ko nattal muy natt ceeb di ci def di ci def ba sëñ bi ne ko baax na mu baax sëñ maasale ko daal di ko ne na la Aliou Sey joxub gàtt nga boole ko ak ñam ñu defar ko soo nappee ñu yit ko waa daaway kaamil ñu jëfandikoo xam nga lu ma ci jubloo sant yàlla ci sëñ Mbàkke Kajoor te sant la ko yàlla ndax bii kët damaa dem ba sàq doon xooli gaa ya fa nekk ba xam nu ñu fa nekk ma dem xool xool gisuma fa sëñ Mbàkke Kajoor mu jaaxal ma ma laaj ko ne man de am naa waajur woo xam ne dama ko doon seet ba fu mu ne te gisuma ko xaw ma nag ne ñun ma sa waji woowu de ba sàq ab jaawukaay képp la dafay jaawoon ba mu fi jaawee rek la daal di jàll àjjana moom ma nga àjjana tëdd nekkul ba dem naa àjjana boobu sëñ bi ne waaw lan moo ko may loolu nee na ma laaj lu ma ñu ne ma teel gim la teel a sopp teel gim la teel sopp képp moo ko may loolu kon sopp sëñ Tuubaa yàlla na ci yàlla saxal barkeb sëriñ Touba ñu ngi sant yéen soxna yi soxna yi fàttewuñu leen muy rakki sëriñ bi ak njabootam gépp soxna yi ñu ngi leen sant bu baax a baax fàttewuñu leen seen taxawaay seen pësteef yàlla na sëñ bi nangu lépp jërë ngeen jëf aleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di yëkkati kàddu gi ci turu sëriñ Ahmadou mi nga xam ne mooy njiitul daayiratu Rawdu Rayaahiin di kilifa gu mat kilifa goo xam ne mbooloo mi mu jiite rek wane ne moom dayoom ñu yëngu ci xam-xam bari xalaat lool nga mën leen a wuuf mën a ànd ak ñoom waxtu wu ne ñuy am ay ndam loolu doy na ci wane ko kàddoom la ñu yëkkati jëmee ko ci kilifa yi tàmbalee ko njabootu sunu maam ju tedd yii tax ñu daje fii muy Serigne Ibrahima Mbacke radiyallahu anhu di Serigne Mbacke Kajoor wax dëgg yàlla. kàddu yu ñu fi dégg jaroon waroon naa tax ñu nos lu mel nii jàpp naa ne ku teewlu luñ fi jëlee danga xam ne mag ñi fuñ fu wóor lañ nekkoon waaye ñu ñuñ war di fàttaliku lañ te lii dong la ci jublu bàyyi xel li sëriñ mag boo waxoon ne ayaa xaadimal muxtaar yi laa tansa saxbahu fa may yansahum fal maduhu maduhu muxatta u bu ñuy waxtaanee Serigne Touba di ko wan nit ñi waru ñoo fàtte nag ñu mel ne sëriñ Mbacke Kajoor ñii nga xam ne ñoo àndoon ak moom ba muy taxawal liggéey bi te mosuñoo tàggoo moom jël seen njaboot jox ko sëriñ bi naq leen ci baax ak njub ba tey ñu nekk ay jum ràññi ko ci mbaax ak njub foo leen fekk ci loolu nga leen fekk kon ñu mel noonu wan ko ndaw ñi wan ko àdduna ñi wane ci taarix ay nit ñu baax wane ñu gën ñooñu wane ñu gën Serigne Mbacke Kajoor ñu mel ne moom. kon loolu bokk na ci li tax daayira bi sa soo ci liggéey gi mu liggéeyal sëriñ bi di tasaare am njàngaleem at mu jot mu tànn ñaar ci ñu àndoon ak sëriñ bi yàlla dogal rek ñu tànn sëñ Mbàkke Kajoor ak sëriñ Modou Gueye Jëmooy du ma wax sëñ Mbàkke Kajoor liñ ci wax sëriñ Xaadim Sylla ak sëñ Abdoulaye ñoom liñ ci wax kon ñëpp ku fi teew te xamu woon ku mooy kan xam nga ne kon kii jaglee luñ bis ku ko tiim ci séq sëriñ bi ci jikko ci taxawaay ci lim bàyyi ginnaaw ci ay njariñ muy ay muy kilifa goo xam ne tey mën nañu wax ne daaray Mamour Anta Sali ja ci këram la des ginnaawam ñu di ko suuxat di ko ba tey jii fi ñuy taataan xam-xam da leen fa tudd ku ñu tudd ci tudd xam-xam ñoom doon na ci dara loolu di cër bu rëy rëy boo xam ne tax na sëriñ Axma kon mi ngi sant baax ndokk yàlla nag. bi njaboot gi xamee loolu ba bi ñu leen ko waxee ñoom itam yitte duñ ko jox ndax nit it dana am cër mu rëy ci moom waaye yitte ja des waaye wax dëgg yàlla yitte ji ñu ko jox bis bi woo ci ñëpp it te loolu it bokk na ci jublu daayira bi bëgg mbokk yi di daje ñi dawut séq di séq ñi gëj a gise gise waaye tey gis nga bi ñuy tudd délégation yi ñii bokk ak sëñ Mbàkke Kajoor ñëpp tudd nañ leen ñu ànd ak mbokk yi ñëw dundal lii rek lañ jubloo kon sëriñ Ahmad mi ngi sant bu baax a baax bu Moustapha di sant njaboot gi ne ci ginnaawam ñëpp di ñaan sunu borom gën leen a sàmm gën leen a dëgëral ba ndono lii ñu gën a wéy di ko mën a sàmm waaye mi ngi sant baax it nag ñii mu seqal liggéey bi waa daayira Rawdu Rayaahiin di ay jàmbaar yoo xam ne it waxtu wane ña ngi ci tool bi di bay màggal gi daa gën a fës rek ñu ci wane lu bari ci lañ liggéey waaye seenub liggéey tënkuñ ko ci màggal gi téere yi ñu génne di ko taxqiq ak di ak di ko tekki liggéey la boo xam ne waxtu la ñangi su màggal gi dikkee nag ñu tànn ci leen ni fësal ko ba ren jii gis ngeen tey waxtaan wii bokk na ci li ñuy tàmbalee liggéey bi ginnaaw suba incha allah danañ def lu mel ni kër sëñ Modou jëm mooy bu ñu àggee la 15 safar am na forum bu ñu def ci maso am Malick di ko seq ak réew mi ak bitim réew bu nee ba ca guddi màggal ga it am na waxtaan wu am solo wu ñu fay def docteur Khadim Sëri moo ko war a waxtaanee taxawaayu jigéen ci biir jàngaleem Serigne Touba. ci lu mel noonu ci la daayira bi dox kon nañ xam ne it daayira la boo xam ne sëriñ Ahmadou nee na yoonu sëriñ Touba sëriñ Touba ko moom képp ku bokk ci jaboot Touba xamal ne sa wàll nga ñëpp la tàllal loxo it ndax liggéey bi ñëpp ci bokk ñëpp ci xaj ndax woote tasaare njàngalum sëriñ bi soxla nañ ko jamono ji ne waaye rawatina jamono ji toll lii sëriñ Xaarim doon wax sëriñ euh, naa wax ko ci woote yu bari yi. alxaabil wan naabil jaxasoo ba ñu bari xàmmeetuñ foofu lañ gën a soxlaa ku leeral sa mbiram nekkoon ndax lépp njub la lépp yiw la lépp njariñ la waaye coow lu bari li gëlëmal na ay nit bañ topp leen ba ña ngay loru di loru ñooñu àndal foofu nag soxla nañ ko fa kon moo tax daayira bi jël euh, yitteem yépp demee ko ci liggéeyal sëriñ ci wàllu boobu Cheikh Mamadou Mountakha mii ñu nekk ci am péncam tey yàlla di ñaan sunu moom gën koo sàmm gën koo dëgëral yàgg teg loxo daayira bi njëkk muy nekk Serigne Touba bokkoon na ñi nga xam ne su màggal gi ma na ñëw ñiy joxe seen hadiyee ci daayira bi ngir ñu mën a taxaw gan yi kenn daa wut jiit Cheikh Mountakha ba tey jii bi mu dikkee naalu réew wi mu naal teg ko ci loxo Serigne Ahmadou daayira bi ak bi ngir ñu taxawal université Cheikh Ahmadou Bamba bu réy bii loolu lépp di ak wóor ak doyloo kon nañu xam ne daayira Serigne Touba la ñu ngi ci woo ñëpp képp ku xam-xam ñor képp ku mbaax ñor képp ku bëgg jàngale yi Serigne Touba tasaaroo te daa war a tasaaroo la ko Cheikh Sidi Baba waxoon ne xéewal la a Cheikhu Ahmadu niamatun awlaha hadil xalaaqa kullaha mawlaha xéewal googu ñun ñoo ko war a jàllale waruñ ko yemale bawal di ko jariñoo àdduna bépp ci war a jot li ci jot nag mooy jaare ko ci xam-xam loolu yoon woowu nag la daayira bi tànn di ci woo ñëpp di ñaan ñëpp ñu jàpp ci sëriñ xam ne ngi sant lépp di leen ñaanal jàmmi àdduna ak alaxira di sàkku yéen ngeen di ko ñaanal ba liggéey bii mën koy gën a jëm kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu